géet euh, dégg naa doon def conférence fee bu fekk la nga dem seeraas sol sa euh, euh, sol sa moo géet quoi jënd sa foofu noonu benn bëy pamaan bi léegi après bi nga demee dañoo dégg ci suuf ay rumeur ñu ne moo géey moo dalaa jox un million pour nga jël xaj bu ñuul biy dund di ko suul ñu laaj dool yow nan nga ko dundee bi nga déggee loolu waaw loolu ki ko wax journaliste la parce que moom rek laa mbëkkanteel seeraas moo gét dafa nekk sénégalais nekk doomu sénégal di def social di dimbali ay nit di dimbali ay néew di doole man maa ko bëgg moom bëgguma mais man du ma suural kenn luy dund dama dem Seras doon jënd benn bëy bu ñuul daje fa ak benn journaliste. mais Seras mais mais Seras ñi ba fay daje pourquoi nga soupçonné benn journaliste. mais parce que moom rek moom fa fekk moom moo ne ma. Mhm. alliance nu mu demee nii affaire yooyu waxtaan dama laa bëgg a jël interview. Mhm. mais man même pas dix minutes sama téléphone mu ngi sonné. Mhm. moo gën daf la jox 2 millions pour nga suul xaj buy dund mais yow imagineel doomu jàmbur nga ne ko diw daf la jox 2 millions pour nga suul xaj buy dund. moo mhm. gën defkat lu baax la taalibe la. day mhm. dimbali ay doomu aadama. Mhm. mais mosoo leen ko dégg si lu ñaaw xam nga Sénégal lan moo fi lan moo fi tax mu metti boo amee xaalis ñu def la góor jigéen. wala ñu giñ la formation wala ñu tam la dëmm. loolu rek moo fi am parce que ñoom wax bu ñaaw la ñuy dund bëgguñu kenn am ñoom pour ñoom ñoom rek ñoo war a am. Mm-hmm. te man dama gis tubaab bu kenn amee daf ko koy yéene. Mm-hmm. mais nit ku ñu nga gis kenn am muy wax wax bu ñaaw ci moom. Mm-hmm. moo gét taalibe la liggéeykat la daa daa gëm boppam te mu ngi jàppale ay doomu aadama. ñoom nañ jéem a def ni moo gét def ba am alal. mais doomu aadama ba amee alal faaw nga def ko formation faa nga def ko sàcc. moo gét bu ma suul la woon xàccax bu ma koy suul ñoom duñ ko yëg. ah saxantuma ba mu suulawul dara. mais yow Mo Gates yow sa relation ak moom yow dañuy déggante wala. Mo man maa ko bëggal sama bopp sama waay la maa bëggal sama bopp. mais yéen a loolu laay laaj. waaw bu ñu gis ne léegi jamono ji dañuy gis ah, koo xam ne dafa dëkk fii Sénégal. Mm-hmm. mu dem bitim réew làqatu jël jël ay jumtukaayam am ay connexion mm-hmm. nekk di yàq deru Sénégalais yi ba ñu ngi ciy dégg sax ah, mu yàq deru Njole ba àdduna yëpp daj ñooy laaj yow loolu bi ñu ko yëgee. en tant que sénégalais na la def ci yow. xam nga booy booy wax dangay wax ak nit. Mm-hmm. parce que nit mooy toog ay toog ci télé wala mu def vidéo. Mm-hmm. di wax wax bu rafet kooku nit la. Mm-hmm. mais Ndiolé dafa am yaay dafa am papa dafa am ay mbokk. nit boo koy wax lu ñaaw da ko war a xool ba pare xool li ngay wax. mais nga jàpp nit saaga ko wax ko lu ñaaw toog. def sa yëf yoo xam ne kenn xamul yëfu góor la kenn xamul yëfu lan la. Mm-hmm. kooku man du la nawloo. mais njole ku ko xam. xam mm-hmm. ne liggéey kat la. Mm-hmm. sëykat la te jàmbaar la. ba muy dóor waar fii marché Zeng boobu xamuñu woon sax ku tudd tur boobu noonu man du ma tudd turam. tur boobu noonu nekk fee di def ay vidéo di saaga. xam nga wax lu ko neex. njole ku ko xam xam ne loolu yàqu ko. déedéet parce que dafay bàyyi réputation bu nice. dem pour dóor pour nekk ak benn nit bu baax taalibe moom mhm. moo get mhm. kon leneen lu nit du wax rek dangay wax sa wax nii rek pour la forme vidéo pour am mhm. ay vie ah, sénégalais nañ gëm seen bopp booy boobu ñuy woo ay jigéen di ko wax may ma lii yoon yónnee ma lii bu paree toog wax la diw yaa ma may lii ma yaa ma ñaan lii yaa ma def lii dañ gëm seen bopp ñu xam ne am na xaalis yoo xam ne lekk ko sax erreur la parce que façon bi ñu koy amee baaxul man kooku nawloo ma ko du ma tudd turam nag. Mhm. ndax xam naa ne léegi ma jot samay saaga. <laughs> moom xam leer na <laughs> jàpp ne boo paree rek moom dina defal gudde woo. léegi jot samay saaga mais saaga ku yaayam baax wala ku papaam baax loolu du dara. Mhm. man lu may wax njole. Mhm. gën na ay doomu aadama yu bëri si réew mi. comme ni ko waxee mu nekk njole moom it tamit ah, dañ koy wax rek que ni ah, moom ah, sénégalais la tamit te yaakaar naa ni boo nekkee ci showbiz bi. lu nekk da koy dégg. kon yaakaar naa loolu tamit ñu koy encouragé di ko wax mu jugaat nekk fa mu nekkoon mais dañ la laaj tamit nee nañ loolu noonu saa waay insisté ci nee na dafa gis ay yeneen euh, ay animatrices ay animateurs ku ci mel ni euh, Boubacar Diallo. ay biis yu nekkoon foofu. ñoom nee dañoo def affaire bi mu pare rek ñoom ñëpp ñibbi mais moom moo fa toog nee na looloo waral nag moom nag ay euh, ca xelam mu yaakaar ni loolu noonu moo ko fa bàyyi woon ba muy génnee ci internet bi. non ku nekk sa yoon bopp la ñoom ñëpp moo géet moo leen jël si aéroport bi mhm. boo xoolee kon ku ne ak sa yoon bopp la mhm. ñooñu li leen fa indi woon def nañ ko ñibbi nañ mhm. mais moom lu ko fa indi jeexagul am na droit toog da nga jàpp ne lu ko moo géet daa am jabare ay doom kon am na yoo xam ne war na ko jombale boppam nit ñi ñooy wax rek mais moo géet du genre boobu sax moo mu ngi toog États-Unis di jàppale ay nit yu nekk Sénégal yoo xam ne mosu leen gis di jël alalam di leen ko yónnee musu leen gis xamu leen. Mhm. nit feebar mu del ñaxam yónnee la ko barki démb douze millions la may benn famille bu nekk États-Unis te ay sénégalais lañ. Mhm. kon xam nga ne kooku def lu baax moo ko tax a jóg. Mhm. kuy def lu baax nag. lu bon du nekk sa xel. kat lu bon bi chaque jour lu bon mooy nekk ci xelam. parce que moom rek lay gis. loo visé rek loolu ngay def moom def lu baax la visé kon lu baax rek mooy nekk ci xelam. Mm-hmm. mais nag wax bu bon mënul ñaax Sénégal kuy dem la ñu bañ a gis. Mm-hmm. barki démb damaa xuloo nit koo xam may àndal ndax moo gét barki Serigne Saliou. Mm. dañoo toog di waxtaan nii mu ne ma. moo mm-hmm. gét formation la xaalisam baaxul. Mm-hmm. billaay wallaay damaa jug dem parce que xam naa ne su ma toogee dinaa ko defal bagage wala ma wax loolu. <laughs> mais pourquoi sax di ngay taxaw di défendre moo gën. parce que gis nga doomu. dafa am la defal wala ba nga tax foo toog xam ma. non defaluma dara parce que ñu bëri dañoo jàpp dafa ma jox xaalis wala dara man lu ma am maa ko may sam bopp. Mm-hmm. dëgg la nag am naa ay nit yu baax am naa Karambo am naa Idrissa Gana Gueye international. Mm-hmm. am na loo xam ne daw ma si bay daanu. maa ngi toog maa ngi jàpp sama njàmbur mais sénégalais ñoo mun di yàq deru doomu aadama. tubaab da ngay am xaalis trop mu yéene la ko. Mhm. mais sénégalais da ngay am tuuti muy jalousie. parce que ñoom loolu lañu xam. Mhm. nañ ko rafetal moo gën taalibe la day liggéey. Mhm. daa gëm boppam. suñ borom moo ko may suñ boroom pare na démb tey toog a ñëw. bu ne kii lii lay am lii lay am. bu ne kii du am lii du am lii. mais da gis ku am tuuti. di soxoree ku am lu bëri. Hmm. te moom loolu la ko suñu borom jagleel kee lee la ko suñu boroom jagleel. Hmm. parce que ñu baaraam yi sutantee nan la doomu aadama yi sutantee. Hmm. ku ne ak lu la suñu boroom may. mais nit bu ko suñu borom mayee xéewal. ñaanal ko mu yokk. ñaanal ko mu yokk. mais toog formation la sàcc la. xaalisam baaxul day jaay dorog. te yow li ngay wax tegoo ci sa bët. donc <laughs> boobaa day metti dorog.